cent quarante cinq migrants benn marabu bu bu saay-saay sëñ Bassirou Niang escroqué leen ba pare abandonné leen fa ñuy bëgg a dee xiif président Macky Sall ma alerté mu recevoir ma joxe ndigal ñu rapatrier leen joxewaat ndigal pour ñu utal leen liggéey ak financement alors kon ba ne Cheikh Ahmed kon euh, loolu mooy taxawaayu Jamra la lutte contre la dégradation des mœurs la protection des valeurs de l'islam mais surtout Euh, une posture et de solidarité au profit des victimes d'injustice ma ne ko nag c'est pas que da nga adhéré tey rek dégg nga ñun ñi nga fi fekk ñoo la ëpp yi droit ma ne ko déedéet ma ne ko imam Samba Diop di président exécutif Jamra ak man nii nga xam ne bañ koy sos au mois de février 83 ça fait 40 ans ñu nga toogoon dès l'instant que adhéré nga tey yaat ñoom yéen a bokk même ak ak même yellef ma ne kon nag ci le bienvenu li ci am solo rek mooy boo xasee ba dugg jamra da ngay nangu sart yi ma la tënkal léegi ndax nit ki mënoo xeex dara ba noppi nekk ca mu daal di nangu lépp devant vous officiellement ma daal di jël badge bi sol ko ko mu nekk membre officiel de jam noonu la demee c'était euh, le 18 avril 2023 waaw mu mu daal di au mois d'avril mais juin juillet août septembre rek dëkk bi riir <laughs> ma ne lu xew ñu sa waa ji def na lu gën a garaaw la mu waxoon ca jàkka ya parce que jàkka yooyu dafay am préservatif la bii nag ki moom jàkk yi di suñu borom subhanahu wa taala la attaqué ma ne waa loolu nu mu demee ak ah, gisoo vidéo yi ma ne ko man yooyu du ma koy seetaan ko yónnee nañ ma ko yéen itam jot ngeen mm-hmm. muy lu leer nañ kenn jottaliwu ko moo waxal boppam mais yàlla ci alxuraanam am na passage yoo xam ne du dëgg moo ko wax ci alxuraan karim bi yi ci ëpp yàlla dafay lépp yàlla day taaxuraan ngir mën a eh, fësal dayoom ma déglu ko de xaw eh, la wala kii lu ko dal ah ñu ne ma waa looy nar ay imaam ay kilifa may ah nañ dawal yéen man rek bàyyi leen ma defaat suura ak moom lu ñu mënti xew ëllëg lay bañ am donc woo naa Ahmed Cissé démb vingt deux heures fidèle à notre démarche de wa amruhum shura baynahum suñu borom a ko santaane te moroomu julli bu tarxiisee bul dem ca penc ma rek déclaré ko geer na nga jiital waxtaan muy suuraa tubaab di ko wax concertation wala di ko diisoo def naa ko démb ak vingt deux heures téléphone bi ndekete du jàll xaw ma daf dégg après laa xam moom moo ma ko wax ne daf ko defoon ne pas déranger bi ma xamee ne mënul jàll pour lay bañ a am ma daal di jël benn audio bàyyil ko ko ci whatsapp naka la ko gis rek cinq minutes après mu woote ah kay moom lu xew ma ne ko li xew yaa ma ko gën a xam da nga delluwaat buum ca mboy mboy ga bële jàkk yi nga doon wax naan ay préservatif et cetera ba imaam yëpp a mer bii li nga def moo raw junni yoon eh, coow loolu la toppoon ndax kii ki moom jàkk yi ki wax si suratul jinni ne wa anal masajida lillahi moom nga attaqué ma ne ko am na imam bu wax ak man day jooy soxla nag lox turam mais après dinaa la ko wax ne ko nag léegi kon la nga ma waxoon man dama rafetoon jot rek jàppoon ne nekk c'est sincère waaye léegi tu viens de nous démontrer que c'est tout le contraire ma ne kon nag suba am na benn réunion d'urgence bu war a am Euh, entre membres du collectif des plaignants plainte bu njëkk boobu ma yóbbu woon ñooñu dañu war a daje suba mais en attendant Jamra a décidé c'est Ahmed Cissé laay waxal de prendre la mesure conservatoire consistant à t'exclure de Jamra kon avant communiqué bi ngeen di ko jot ci réseaux sociaux yi maa ko ko njëkk annoncé au téléphone on a décidé de t'exclure parce que buggal mu bugguñu mu mel ni que yii ngay def Jamra def ko cautionné wala Jamra daf lay protéger alors bu ko defee nag léegi waa suba dañu war a daje bu ñu dajee dinañu xool léegi la suite à donner voilà kon nag euh, foofu laa mujjee ak euh, Ahmed Cissé euh, sanq la ma ñaar wala ñetti élimaan woo maa ngi gërëm Serigne Mor Mbaye le grand prédicateur de la grande mosquée de Touba Kéré di gërëm yeneen imam ñoo xam ne jàpp ma seen tur Euh, miinu ma leen ñoom tamit euh, euh, apprécier nañu la mesure conservatoire bi Jamra jël consistant à l'exclu en attendant la suite des événements alors bu ko defee nag pour l'instant la majorité parce que ñun démocratie la ñuy doxal et pour que ñu déposer une plainte ce qui est dangereux pour lui parce que Cheikh Ahmed Cissé da ngeen koy fàtte il est sous contrôle judiciaire contrôle judiciaire mooy lan mooy bàyyi nañ la bàyyi nëgandik waaye boo juumee ba récidivé li tax ñu def la contrôle judiciaire loolu nga defaat ko ñu teg la loxo six mois ya ma ko doon bañal ndax yërëm ko ba deux mois la def rek ma déposé benn déclaration d'existement ñu jéggal ko su boobaa six mois yi dañ la koy appliqué loolu mooy contrôle judiciaire euh, ma loolu loolu la def dafa nekk sous contrôle judiciaire ba pare daal di def récidive te kenn wañaarul loxo kenn forcé wu ko moo toog ba mu neex ko jàkkoog ne jaay wax rëy wax rëy yi mu wax ci suñu borom subhanahu wa taala le danger nag moo di que yéen ñëpp si si ki mu benn la den yooyu lu garaaw la wax de nee lii bu ko état réglé wul nee na xamul kan waaye moom personnellement fu mu daje par hasard mën na doon tey suba wala ginnaaw suba fu mu mënti daje ak Cheikh Ahmed Cissé seen ñaari jëmm daje waat na waat yi gën a garaaw ci waat yi nee na su boobaa bu nit ñi ñëwee teqale leen foog mu am bakken bu rot na muy bosam wala moom kooku c'est grave alors kii pour sa propre protection Cheikh Ahmed Cissé te propose nga delluwaat prison alors am na am na kilifa gum mag guma ma woo euh, ci hiérarchie bi il partage le même point de vue que moi fii nga ne ci en danger de mort parce que man maa ngi nekk di wax ñu ngay kii mooy toog presse bi ñuy échanger di analyser mais am na ñoo xam ne jël nañ seen décision et j'ai les preuves kon pour des raisons de ta propre sécurité et pour des risques de trouble à l'ordre public nous allons demander ton arrestation kon loolu daal mooy décision bi ñuy jël bu ko defee na dégg naa def na vidéo def nangam yooyu defal na ko fi ay yoon yoon respecté wu ci benn voilà kon nag euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant euh,